jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontante ak mbegte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii nag ci gox boo xamante ni goxu làmb la sampion yàgg na fa jóge dem fu ne sampion yàgg na fee bëree départ jóge fi nga xamante ni mooy Caaroy Pikine Sibs yu mel noonu dem bëre ji ci làmb yàgg nañ cee gis waaye génération bi nga xamante ni dafa mujj dafa am benn révélation boo xamante ni gis nañ ko ci muy ci diggante ñaari at yi wala ñetti at yi weesu ay xale yoo xamante ni ñu ngi leen di gis ci lutte traditionnelle bi euh, mun naa ci citer ay mbër kenn ki nga xamante ni tey moom la seet si euh, muy fils de Batlen gis ngeen compétition bi mu amee ba léegi sorti bi mu ko njëkk a gis euh, nga xamante ni jàpp naa ne xale bi bàyyi leen ko xel bu ngeen gisee ci làmb am na taxawaayu mbër bi am na dayo bi mooy terrain Adrien Senghor journée yi nga xamante ne daanoon na fa pakala la euh, fa ak ay champion yu bëree bari daan leen keroog bi ma ko gisee mu bëre dama ñëw ni ko wax yow yaay kan mu wane ni am na ci yeneen champion yoo xamante ne ñu ngi teg ay jéego jën bu baax a baax ci làmb gannaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wel waxtaan bi xool mbër ak koor gi yan taxawaay làmb am. fils de Badane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay di la jaar ci koor gi di la balaax. Mm. di baal Sénégal yëpp àq waaw di leen nuyu di nuyu gars yi xam nga. di nuyu sama grand yàlla di nuyu Faye Ndiaga. xam nga di nuyu Babacar ñoom hôtel xam nga ñoom Babacar ak gars yëpp daal. ñoom Sadib waaw. a baax a baax. Mhm. di nuyu noo dundee noo dundee koor waaw ah, comme ni ko gars yi di dundee rek. dina woor. Ah, la comme ni comme gars yi ah aussi ah, dafa ay. cinq repas yoo xamante ni ko lekk koor gi ñëwee est-ce que di ngeen woor wala wooru gàlle day mën a neex ci yow. la quoi mais man moom man ma tur bu rafet quoi tur tur bu rafet xam nga. quoi ma nekk doomu jullit. ñëw fekk sama papa ji jullit sama yaay di jullit xam nga. kon mënu ma ñàkk bañ a woor a bu dul koor sax. damay am jour yoo xam hmm. Hmm. Hmm. dundee làmb parce que dafa mel ni saison bi bi mu dugg see ba léegi neex lee de. ah ñu ngi sant yàlla moom ñu ngi sant yàlla xam nga làmb moom tey day neex su suba mu naqari. mais lu mën a am rek dañuy sant yàlla mais yow neex lee ko. ah ñu ngi sant ñu sant yàlla bu baax. <laughs> ñaata compétition nga génn. Dakar fii. Hmm. naa fi quatre xaw ma cinq. compétition boo xoolee li nga génn lépp ñaata la. ñu ngi génn moom bari na. parce que boo ko non war na ko mat kay si war na ko mat kay parce que Gambie dem naa fa ay yoonu yoon ay Passy Kaolack ak yeneen dëkk daan nañ fa dem. Hmm. Hmm, bari nañ génn de. mais Fils de Balla li ma jaaxal mooy mënoo génn ci quatre compétitions daaw daawati jég quatre compétitions yoo xam ne doo final jël final bi bi yoon nga génn lu mat seize compétition jëloo dégguñu fenn foo xamante ni Fils de Balla moo ko jël li nga final sax daanaka buñ koy bu buñ nee benn duñ ne ñaar lan la loolu. waaw ma li ma la xam nga lan moom du biir day xëy rek wasin xëy na daaw ñu doon daan di jël mënuñu leen. Mm-hmm. ren ne ñoo ñuy daan ñun nag ñu ngi nekk suñu entraînement nekk suñu lu mu waar quoi xam nga mais bu ñu demee tam yàlla xam nga def noonu dañuy sant yàlla rek ëllëg tamit daf ñuy may quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que du sa euh, xeeb ay adversaire daf la daf la jural li parce que bii passé euh, saison yi weesu daaw adversaire yi xëy na mun naa ne mënuñu la woon daaw ñu la woon bàyyi xel parce que jàpp ñu woon bàyyi bëre bi yegg na foofu doole ji yegg na foofu est-ce que biñ la bàyyee xel euh, nekkul yaa ngi commencé ñàkk a neex la ci làmb non non ñun nag du ñu xeeb du ñu xeeb adversaire waa waaw ñun du kenn ci làmb ak ku mu mën di doon mbiru poids lourd boog mbiru poids léger yëpp du ñu xeeb kenn comprendre nga mais comme comme comme comme ni ma wax léegi rek làmb du biir de xëy rek wasin xam nga ñun nag ay xale lañ xam nga ku làmb ñun ñun nag bu am suulee dañu def fulaak fayda lu ñu yàlla jox rek ñoo xam ne loolu la quoi mm-hmm. Mm-hmm. mais du ñu xeeb benn adversaire mm-hmm. gis naa ni euh, sa diggante Caaka Faye daa mel ni neenu na la trop ñaata compétition ngeen jot a laale ñaar parce que gis benn yoon boo ko daan. waaw Caaka bëri hmm. ko doy. Hmm. Hmm. fan fan nga ko daanee woon. ñaar yoon moom moo daan quatre fois nag. moom moom da lay daan rek jël mise bi ñibbi. waaw mais loolu wërsëgoon na quoi dinaan yàlla mu jikko xam nga. di ñaan yàlla ëllëg bu ñu dajee yàlla maa ñu ndam rek. Mm-hmm. mais actuellement gis nga beneen révélation génn na comme Doudou Sané daaw ni mu meloon ci compétition yi la muy ñëw la plupart dafay ñàkk mais ren gis nañ ne compétition li ci ëpp moom moo ko jël euh, ban gis-gis nga ci am ak ban taxawaay nga gis ni Doudou loolu la defar ba actuellement saison wu làmb mu ngi waaj a neex. non Doudou champion la xam nga champion la bu ko waxee est-ce que ren moom ku ne gis na ni mu mm-hmm. waaw mi ngi ci ay dina mi ngi ci dina dina bu baax quoi xam nga. man loolu rek affaire moom ñun moom ñun ñun si lu ñu war quoi. Hmm. waaw ñun ñun ñun si lu ñu war. Hmm. Eh, ñu dellu si waat tuuti ñëw arène nationale euh, bëri nga fi compétition ñu génnee la euh, recours parce que sa adversaire dafa dem bind recours muy sa diggante ak ak ki nga xamante ni euh, mooy Talfa diggante boobu lan la woon site bi bi muy am mën nga expliquer combat bi nu mu demee woon. waaw foofu moom jàpp na jàpp ma ne na site am na fa quoi. parce que bi ñu bëree moom moo daaw jël sama tànk bi may ras xam nga suuf si foofu bari na bari boo xam ne xam nga bi may rasu ci laa rëpp trois bi ci laa rëpp trois bi Diop arbitre sifflé wul moom ma yaakaar ne daan na ci laa bëri nag ma daan ko hmm. léegi ci la Diop dem def recours xam nga rek mais mooy loolu dañuy sant yàlla rek xam nga loolu wërsëgam bi li mu génnee na sa épaule bi moo dal ci suuf. ah man wax dëgg gisuma fu sama épaule laal suuf man gisuma fu ma ba mu paree xoolaat naa lam ni man toog naa seetaan ko mais gisuma fu sama épaule laal suuf. Hmm. Hmm. mais moment bi ñu weetee rek jékki-jékki ne la euh, Talfa ñoo la éliminé ban noo noo mujjee def. non sant yàlla rek ñaanal ko dama dem ba ci moom félicité wa ko yàlla na fa jël xam nga. waaw ñu moom làmb comme noonu noonu lañ koy dundee quoi bu ñu amee dañuy sant bu ñu ñàkkee dañuy sant. Mm-hmm. Euh, sa digganteeg tas euh, yaakaar lan la. parce que dafa mel ni ni ngay gis yéen ñaar seen i làmb ni ngeen di neexoo ni ngeen ni àndee ni mu demee noonu. waaw tas moom da nga ma laaj question bu ma sawar wax quoi. te sama jarbaat la yaayam moo nàmp jox ma ma nàmp comprendre nga kon loolu bu ñu nekkee la bu dul làmb sax dañuy neexoo xam nga mu nekk nag ku ma respecté ku ma jox cër mosu ñoo warante mosu amul ku ma jox cër daal xam nga. Hmm. bërëb boobu eh, ngeen daje arène nationale bu bu bu samp sa bopp bi loolu du mu demee loolu. waaw loolu bëri na bu ñu daje bu ñu daje fee dañuy bëre bu fee dañuy bëre après lu mu demee rek ñu xam ne loolu la quoi mais après bu ñu ñëwee si kër gi maanaam man làmb na laa jàppee. làmb ak ku mën a di boole damay bëri xam nga. mais sa nijaay na war nga kaa jox cër ci làmb sab sa bopp nijaay. xam ah, nga loolu du dara làmb la rek après bu jeexee jeex na. yaakaar da man pare naa ci moom. waaw bu jeexee na làmb la rek. Hmm. ah après respect bi cër bi xam nga lépp a ngi fi quoi. Hmm. te macha allah jox na ko ba mu mat sëkk. Hmm. di ko ñaanal mu nekk champion xam nga. def lu raw li fi gars yi def quoi. keroog bi mu la daanee dafa dem final moom ak Franc euh, gis nga ni mu def ba Franc daan ko tey boo ko doon rectifier ban erreur la def ba Franc daan ko ci combat boobu. wax dëgg gis ma ci erreur moom man personnel. Hmm. Hmm, gis ma ci erreur quoi gis ma ne bëri na erreur. xam nga xëy na xëy bëri xale la xale hmm. mu demee noonu mais dara baax na. mbër war na laa mën a wër ndomba nga nga accéléré wu tourner automatiquement pour mën a génn te ëppoo ko doole. mais loolu ci man bëri la bokk. Tazaka dafa mën bëri moo tax mu tourné def rotation boobu génn taxawaat bu doon keneen la fa lay taxaw mën nañ ko buddee suuf wala genre mais mën a bëri moo ko ci génnee keroog quoi. Hmm. actuellement nan nga gisee làmb parce que saison bi tëj na gaa gàtt na lool mais bu ñu korité ba pare ba ci jouru korité am na ci ay promoteurs yoo xamante ne tëgg nañ làmb di nga dem. waaw ñun nag dañoo am staff quoi. Hmm. Hmm, ñoom la ñuy déglu bu ñu nee ñu def leen ñu def bu ñu nee ñu bàyyi leen ñu bàyyi actuellement xamaguñ luy xew après quoi. incha allah ñu ngi toog daal di déglu gars yi quoi suñu staff. Hmm. dafa mel ni lutte traditionnelle bi nga gën a favoriser ko lutte avec frappe bi parce que duñ la ci gis bari lu woo ci ay combat xaw ma nu mu demee noonu. non même pas du loolu sax xam nga lutte avec frappe gars yi ñooy dellu avance chaque jour te man moom du fi toog di xaar benn combat rek. bàyyi li ngay wax gaa yoon kan moo delloo sa avance. bari nag man xam nga wax ma limal ñaari mbër. du ma fi nekk dundin tur diir lay seetaan dañ naan moom mbër yi noonu mbër boo ne da maa ragal. non du question ragal sax mais ñoom ñoo xam ñu tax ñu loolu. ma yow say nattaangoo comme ñi nga xamante ma ci laa bokk. la wax jëli comme mbëri arène nangu ñu ñu jël hmm. ñun mbëri mbabat yi nañ defal tournoi ñu bëri def benn karaaf ñu bëri ay boy fay ñoom góor a soog gaa yëpp ñu ngi fi ñu defal benn karaaf ñu bëri ko comme mbir que boo xoolee boy fay fi mu toll ci làmb ne moom bu la am. boy fay bari na de. ñaar defet la am. bari na de. na man ñaar combat la am. yow. waaw man da xaw ma ñaata combat. <laughs> après yow yow. mais yàlla baax nañu defal benn. ñaata combat nga am naa cinq combat ren. ñaata victoire nga trois victoire. kan nga daan. jàpp nañu seen tur moom ni ma daan jàpp nañu. mooy nañ ñu jéggal ma sax ñi nga daan parce que ay mbër lañ ay champion waaye ñooñu xam nga rek ay laax laale. ñoo xamante ne boo leen yuuxoo sax ñu daanu nga jàpp daan. ñooñu am naa cinq combat. ñooñu ay champion lañ. xam nga ñu def champion yooyu mënu xam seen tur. man xam nga man noonu laa noonu laa man su ma bëri nit daan ko. pare naa ci kooku ki ma daan kay laa jàpp ki nga xam ma daan. Hmm. kooku laa jàpp turam fexe nu ma fayoo. kan moo daan. waaw ah, man nag jaata Diop moo ma daan jaata bu mbuur. jaata xaw ma wax dëgg mu baal ma mais xaw ma ko. waaw jaata Momadou moo ma daan bu mbuur. Hmm. ak euh, comment dirais-je Albouri sama jëm hmm, ñoom ñoo ma daan. Albouri man mel. Albouri waaw bu bu Tëngéej. waaw baax waaw Alboury bu Tëngéej. noonu la ma daan wax. actuellement nii est-ce que promoteur yi ñu ngi lay contacter pour pour pour brodeur bi. ñu ngi may contacter bu baax a baax. Hmm. ñu ngi contacter bu baax a baax. yan la wax. wax nañ ma fi ordinateur. wax nañ ordinateur de actuellement. xam naa ñetti mbir yoo xamante ne keroog toog naa ak benn mbir ñu woo ko ne ko avancé ordinateur mu ne ko da ngay jël mu ne ma waaw ma ne ko jëlal boo jëlee xam ne lépp dëgg la pare naa ci moom la des. ordinateur waaw te moom moo delloo avance sax nag. moom moo delloo avance sax nag. moo delloo sa avance. moo delloo avance yàlla xam na ko. yow pare nga pour laale man pare naa pour mbir lépp bàyyi ma fi kenn. ñu waa ginnaaraay si fii ma dëkk amul benn mbir may bàyyi ku ñëw damay bëre. ordinateur de mooy borom àll bi moom xaw ma fu ñu koy bëree mais na la na la Dakar arrangé. non Aliou moom fu ma ko fekk fu ma ko fekk moom du doy maa ngi yónni yóbbante message boobu moom fu ma ko fekk du doy lu leer laa la ardi. mos ngeen laale. non laale guñ nag. mosoo leen laal. non laalee guñ mais nga jàpp ne yaa ko mën. non non balaa nga koy yëpp ñam ko de. xam nga lamb bi gars yi mënante wuñu. Hmm. dañuy daarante rek mënante wuñu dañuy daarante rek. da ngay daan tey suba ñu daan la nga daan tey suba ñu daan loolu boo dajeeg caaka di nga am yaakaar ne mën nga ko daan. waaw caaka heure bu ñu dajeeg keroog laa a jàpp ne dama koy daan heure bu ñu dajee dama jàpp ne dama koy ba keroog léegi li am am rek. Hmm, hmm, actuellement nii ak koor gi yan préparation ngeen di jël bu ngeen waajal làmb wala nii nii saison bi tëj na actuellement wala boo koor gi moo tax saison bi lu ci bëree bëri taxaw bu koor gi bu ngeen nekkee ci koor gi nan ngeen di entraîné ak ñaata séance ngeen def. d'accord moom deux séances la ñu def. Hmm. waaw deux séances bu ñu demee géej bu ñu demee ba pare dañuy dem géej def physique xam nga charge bu ñëwee dem salle musculation ba heure minuit wala une heure xam nga bu ñëwee dañuy sangu rek réer daal di <laughs> mais lan lan ngeen di lekk ci koor gi. li gaay di lekk rek li di lekk rek. bëgg ay mu xam saag yu mel noonu dañuy tas yaakaar. waaw mu xam moom moom. am let waaw mu xam sax non pas am let mais mu xam moom koy toob moom. dibi. dibi non. taat tuuti bu ñorul. dibi moom Faye moo fi jaar rek rek. Faye Ndiaga. waaw Faye Ndiaga moo fi jaar di ñu waaw di ma defal dibi yu baax sax macha allah. Hmm. Hmm. mais yow moom ak Boy Faye actuellement neexloo woo leen mais ñu ci bari nee nañ da ngay sa làmb. da ngay dugg si ci làmb ji euh, firi rek bàcc bi nga ko génnee ba léegi bàcc goo kenn de. <laughs> waaw xam nga ñu ne comme ni ma la sànq rek ñun duñ fooy làmb ndax dañ ne ñu nekk suñu ginnaaw moo tax ku gën yàlla nekk sa ginnaaw Babacar xam nga ay Père Ndoura ñun mënoo fooyee sa làmb xam nga rek ñu ñëw rek def fulaak fayda comme ni ma wax léegi yàlla weddi mais dañu sant yàlla dem mutiwaat. Mm. Mm-hmm. yaa ngi ikir xam sa cosaan ba tey. maa ngi xam cosaan waaw di leen nuyu au passage ñoom ñëpp di nuyu grand moo moo kos di nuyu mbër yëpp daal mbër yi fa nekk yëpp. est-ce que yéen a ngi contact. waaw baax a baax. ñu ngi contact bu baax a baax. Hmm. Hmm. Hmm. ana Jadli. Jadli moom nekk fi daa tukki quoi. ana Sokh. Sokh moom daa tukki. daa tukki moom mi ngi ko wax. Hmm. Hmm. yéen a ngi waajal diggante ma gàmm koy. bu baax baax a baax. moo gisee xale boobu de xale la màgg na am na kàttan. non mbër la champion la xam nga mais dañu ñaanal soq yàlla may ko ndam rek. Hmm. nan la mën a amee ndam ci kaw gàmm koy. ci kaw mu entraînement xam nga. comme comme ni mu doon amee yeneen ndam ci yeneen combat rek. mais gàmmu gay du ñeneen. gàmmu gay du du nooy neexu benn mbër. waaw gàmmu gay ñu soq daan moo gën a dis ñu soq daan moo gën a dis. ah Gamou Gueye de actuellement moom xam naa ni mbaru lébu la te am na loo xamante ni bëgg na ko eh, ñu ñëw ci beneen kii bi mooy drapeau chef de l'état actuellement xam nga ni bientôt léegi mu ko bu weer bi deewee mu ñu ñu dugg ci ñu lay recruter wala. waaw am na ñu ma jotoo mais waxagu jubóoguñ daal am na ñu daa am jubóo. maanaam wa déggooguñ ci ay kàddu quoi. loolu ak Mara jubóoguñ dégguñ ci ay kàddu. loolu <laughs> <laughs> maa ngi yaa dangay laaj ak ban dëkk la yow la man du ma laaj xaalis na làmb ci làmb Sowal daam ku ne xam ne làmb sëriñ la. Hmm. xam nga il ñu waajal suñu bopp préparer xam nga. Hmm. waaw bi comment dire Kaolack may woo euh, nu mu tudd waa Tamba aussi ñu may woo. Hmm. waa Kaffrine ñu ngi may woo. ah mais kon moo xam nga rek ñun moom boo boo nekkee sa sa liggéey def ci fulla ak fayda wax ñun ñoo lay soxla ko loolu kese la. Hmm. chef de l'État daan nga dem. waa dem naa si naa doon dëkk nga daan participer. Louga laa demaloon premier bi mu njëkk a dem. Hmm. Louga laa demal deuxième ma demal waa Tamba. Hmm. mais Louga lan moo tax nga dematoo Louga continuer fa. non dara dara taxul. Tamba. Tamba tamit dara tax ñoom ñu ngi may waroon ñoom loolu si ñu ngi may waroon. Hmm. maanaam comme ñoom raison yi la bëgg yëpp koo ci déggoo rek incha ñoo ñu lay fas yéene. incha xam nga mënu maa demal ñeenti raison wala ñetti raison benn raison laa mën demal. Hmm. ku ma si déggoo rek ku ma si yàlla boole daal ñu war a liggéey incha allah dañuy liggéey dina xeexal. Hmm. lan nga bëggoon wax loo xamante ne ma la ko te sax bëggoon nga ko wax. non laaj nga lépp. est que laaj naa lépp. laaj nga di sant gars yi rek. waaw di sant rek ku mel ni xam nga fay njaga moom aw ma fa moom fu ne la ma alalam xam nga taamam lépp lay def ci man yàlla xam na ak yàlla xam nga di nuyu Sadibou di nuyu Mawla bin xam nga di nuyu ñoom Pamboj mm. waa di nuyu hôtel Babacar mm. moom comme ni ma la waxoon rek chaque koor bu jotee këram la ñuy dogoo mm. un mois yi fa lañ koy defee mm-hmm. mu bëgg ma moom tuddee ma dem na ba tuddee ma doom sax yàlla xam na xam nga di nuyu ñoom Boubacar ñoom tas yaakaar xam nga di nuyu gaa yëpp daal du nuyu waa fondation groupe Sopp Sëñ Babacar di nuyu waa groupe Sopp Sëñ Babacar xam nga di nuyu waa Sababu Sababu Rahma di nuyu suñu waa Daaru aussi waa Daaru Sopp Sëñ Babacar di nuyu waa hmm? waa fan sama waa fans club waaw waaw sama waa fans club maa ngi nuyu bu baax a baax am Ndiaye ma président bi waaw man jë teg naa loxo nuyoo bi ci loxoom xam nga. mu jàllale ñoom ñu nuyu sama xarit sama doomu nday euh, nu mu tudd sax ah, junior waaw. junior waaw maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax dafa jógee Kër Ndofane ñoom ba fii xam nga ah, di ko sant bu baax di ko mm-hmm. euh, ma bëggoon. ci tàggoo bi rek ñëpp xam nañ ne waa kër Sidi Hadj Malick nga euh, tey da ngay tàgg rasulillahi sallallahu taala wa sallam mu bëggoon nga may ma ci tuuti rek su ko defee ñu tàgg mbokk internet yi xam ne weer bi weer wu sell la waaye ndeke Fils de Batlel buñ la leen lu dul bëre. bisimilah gaa yi gars yi man a gaaw gars yi ñoo teg may ma rek parce que xam naa ci dara am na ci lu ma gis nga nga di def rek may ñu ko ci weer wu sell bi ñu barkeloo ko. boobu ñoo doon. ayca non non Bozul waay. Mam Maodo yan xamal yonent bi wasalliyan yaa ilaa abadan anna muhammad مالنا مختار بالقيم نبي صلى ma way yonent bi sa loxo ca kaw wasal liyan yaa ilaah hi wajiziyan abadan أنا محمدنا مختار بالنسمة وسلم كمبوجة صلى الله عليه وسلم محمد محمد ينن محمدنا مختار بالنسمة saan Ndeysaan Ndeysaan macha allah macha allah eh, mbokk yi kon loolu leen indiloon di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo di leen jëfal ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu laam ba jër ngeen jëf.